أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba tey comme niñ ko baaxoo def noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ba tey ñu toll ci suura ala imran bi iznillahi tabaraka wa taala tey ñuy jël juróomi aaya aaya 128 129 130 131 132 juróomi aaya yi sunu borom subhanahu wa taala mu ngi ci jàngal juróom ñaari mbir bi ci njëkk mooy istiqlaalu rabb taala bil amri kullihi fa laysa li ahadin min xalqihi tusarrifu fi shay illa ma uzina fihi illa ma adana fihi lil abd li ñuy njëkk a xam ci juróomi aaya yi nu tiim liñ ciy njëkk a jële comme njàng mooy borom bi subhanahu wa taala moo moom lépp am indépendance ci lépp mooy borom lépp moo moom lépp mbir yépp ci loxoom la nekk lu ko neex mooy am lu ko neexul du am amul kenn kuy coobarewu kuy neex ci kaw suuf si ci keppaaru asamaan bi dara ba mu am nekkal ku la neex nag li yàlla bëgg rek mooy am moo tax mu ne istiqlaalu rabb taala bil amri kullihi yàlla lépp moom moo ko moom moo ko yore amul kenn looy yore kenn yorewul dara kenn moomul dara koo fi dégg mu ne yor naa dara wala moom naa dara déglu ko ay fan léegi ñu woon la bàmmeelam loolu mu doon wax moo ko moom wala moo ko yore mu bàyyi ko fi dem même bu dee jabar wala doom ji mu jur wala li ko gën a jege fii la koy bàyyi dem bàyyi ko fi amul kenn ku am dara ku moom dara fa laysa li ahadin min xalqihi amul kenn ci mbindeefam yi ci jaamam yi tusarrifu fi shay buy soppeeku ci dara di ko ci def lu ko neex amul loolu moo tax gis nga tawxid am importance ci jaam soo amee tawxid da ngay xam ne yàlla moom moom lépp mooy borom lépp kenn mënu fi tus ku dul bi borom bi loolu bu teeree leer ci yow rek nga noppul waaye boo amul tawxid dan lay fowee comme ngelaw nu muy fowee këyit gis ngeen bu ngelawee këyit yi nekk ci mbedd mi ak ñax mu wow mi nan la leen ngelaw li di def ah fu ko neex mu jàddal leen fu ko neex mu yóbbu leen da ngay gis perméable bi muy naaw nekk ci gaw jaww ji mën na naaw ay kilomètres mën na dem ba yegg ngelaw li delloo siwaat ko lu tax parce que amul valeur amul lu ko dëgëral noonu bu doomu aadama melee noonu nag alkuna borom bi day amul lenn lu doomu aadama di am wala muy def dara lu dul borom bi jox ko ci ndigal ndeysaan lii di ngeen ko jàng léegi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi coobare woon ne day def dara yàlla ne ko mbir mi du sa mbir loolu léegi ngeen gis ko ci aaya yi ñaareel mooy az-zulmu mustawjib lil azab tooñ loolu ñu naan tooñ day waral mbugal nit ñi saa yi ñu tooñee yàlla yàlla mbugal leen jullit yi li ñu nekk ci àddina bi tey ci ay mbugal tooñ la dañoo tooñ yàlla ay jullit yuy bokkaale ay jullit yuy fenn jullit yuy sàcc jullit yu soxor jullit yu amul yërmande jullit yu xamul diine jullit yuy njabar jullit yuy tappale jullit yuy def yaramu neen danga koy wax léegi chauffeur taxi bi ma nekkoon maanaam des na tuuti Sénégal jigéen dootul sol yére des na tuuti rek fii ak ay at jigéen dootul sol yére Sénégal mais fan lañ jëm léegi nag jullit yooyu mel noonu nga defe ne yàlla du leen mbugal fekk yàlla mbugal leen parce que mbug tooñ boo gis rek mbugal moo ciy waru moo ciy tegu comme dañuy tooñ yàlla nag foog yàlla mbugal nu te mbon gi nu nekkee ak ñàkk a jaamu yàlla gi di li ci doy waar ruslu amul ñenn ñu taxaw pour dindi ko ñépp a ngi noppi te yonent bi nee na saakitu anil xaq seytaanul agras ku gis dëgg noppi bañ ko wax yow seytaane bu muuma nga mais fan lañ jëm ndax dañuy toog nii rek croiser les bras amul benn effort bu jullit yi di def pour soppi li mbon gi الظلم مستوجب للعذاب ما لم يتدارك العبد بالتوبة gis nga ay nit bu ñuy tooñ yàlla yàlla ci baaxam yërëmu leen dabewu leen yërmande tuub yàlla da leen di mbugal sikk nekku ci loolu nag moonu dal fi mu nekk nii sunu yërmande yàlla dabul tuub dabu nu ñu tuub ci diggante bi yaru yaru yàlla bi day dal sunu kaw fa yaxfiru lahu su neexee yàlla nag mu gaaw daal di baaxee jaam bi mu tuub ndeysaan mu tuub comme ni ma jàngee woon tey góor gi ni mu tuubee benn góor dafa dugg këram rek gis benn doomam bu handicapé di jooy jooy yu métti góor gi daan ne doomam bi yow looy jooy mu ne ko bàyyi maam diw dafa faatu sunu dëkkandoo bi maam diw dafa faatu léegi mu ne ko loolu ngay jooy nii dinu amee rek dinu tëre dégg maam diw dee na yow lu ci sayoon xale bi xool papam ba ci yàgg ne ko foog ma jooy mu ne ko lu tax ngay jooy mu ne ko moo ma doon yóbbu jàkk moo ma fexe ba may jàng alxuraan ba ma mokkal ci lu bari moo fexe ba ànduma ak ñu bon ñi moo fexe ba ma tënku ci diine moo fexe ba ma baax kooku mooy sama baay ci ruux yow sama baay yu yaram kese nga yàlla dafa sabab rek yow nga jur ma nii naturellement ci àdduna waaye dëgg-dëgg sama baay mooy ki dee nii loolu laay jooy ndax damaa ñàkk loo xam ne dootuma ko amati ci kaw suuf rek ndeysaan papa ji daal di daanu ci kaw suuf daanu ci kawam daal di koy yëkkati comme handicapé la daal di koy taf ci dund bi daal di tuub commencé dem jàkk di ko yóbbuwaale te góor googu li lan mooy sababam mu tuub bu doom ci gis nga gis nga kon ndeke doomu aadama yi bu leen yàlla dabewul tuub du baax li ki tuub lan war a def balaa mbugal mi di sax ci sunu kaw dàkk ñetteel mooy xurmatu aklu riba ci ay yi ñuy jàng sunu kanam léegi dinañ ci gis riba dafa araama lekk mutlaqan ak riba bu mu mën a doon nag mudaafan kaana aw gayru mudaaf moo xam double nañ ko moo xam double wuñ ko riba ci boppam dafa xaraam ak façon ak xeet ak anam ak wàll ak doxalin bu mu mën a doon riba araam na jullit warul rek riba loolu danañ ko jàng léegi borom bi subhanahu wa taala di def annonce am di tere jullit ñi lekk riba mbokk yi bokk na ci li ñuy jàng léegi mooy bayaanu ribal jaahiliya riba bi jaahiliya yi doon def démb ceddo ya ñi ko doon def yàlla tere leen ko bokk na ci li ñuy aaye yi di jàngal is huwa hada alladi naha allahu taala anhu mooy riba bi nu yàlla tere tere tey te mu wax ko ne wala taakulu riba bu leen ko lekk juróomeel mooy wujubu taqwa liman arada al falaax fi dunia wal axira ku bëgg a texe ëllëg àdduna ak alaxira benn mbubu rek benn yoon ngay jaar mooy lan ragal yàlla da ngaa bëgg a texe àdduna texe àllaaxira amul bunt bu dul ragal yàlla ragal yàlla dong ngay jaar texe àdduna texe àllaaxira wujubu ittiqaau naar walaw bi siqi tamr beneen bi ñuy jàng mooy war na ci ñun ñu moytu safara donte ne benn xottitu tàndarma la ñu xotti joxe ko yonent bi waxoon na moytu leen safara donte ne xaritu tàndarma ngeen jël joxe ko nga yor benn tàndarma nga dagg ko ci digg bi lekk lenn saraxe leen li ngir nga mu musal la ci safara yonent bi nee na ku mun loolu na ko def juróom ñaareel mooy wujubu taatullahi wa rasuli aaye dañuy jàngal ne dañu war topp yonent bi ak yàlla ak yonent bi dafa war ci topp yàlla ak yonent ci la ñuy amee yërmande yërmande yàlla mbokk yi ndax bëgg nañu yàlla yërëm nu kan moo bëgg fii ci ñun yàlla yërëm ko li muy def mooy mu topp yàlla topp yonent wa hiya al afu wal maghfira yàlla dina la jéggal yërëm la waaye bénéfice bu rëy bi ngay am mooy yàlla dina la dugal aljanna bu ñu tënkee juróom-ñaari tomb yi mooy li ñuy jële tey ci sunu juróomi aaya yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أدعفا مدعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم بربنا سبحانه وتعالى آية بي واتش موي ليس لك من الأمر شيء مير مي ديدو سمبير مومو تي دارا وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا أفرادا من المشركين بالعذاب ينتبه عليه الصلاة والسلام wér na ci xadisu muslim mu ne lamma kasura rubaiyatu rasul wa sajja fi rasihi fa jaala mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam bi nga xamante ne damm nañ bëñam bëñ bi lañ damm ñu daal di xuri óom yi ñu daaneel ko ci suuf casque bi mu takkoon ci guerre bi daal di tànc bopp bi deret ji commencé sotteeku moom yonent mu taxaw gis deret ji sotteeku mu naan kayfa yuflih qawmun sajju ra'sa nabiyihim ay nit yu toj seen bopp yonent ba deret ji di sotteeku nit ñooñu nan la ñuy texee yemuñ ci toj bopp yonent ba waaye ñu xuri ay oomam damm bëñam te yonent boobu de xam ngeen lan la def amul lenn lu mu def lu dul wa huwa yaduuhum ila allahi taala moom de da leen di woo kaay leen ci yàlla rek ñoom ñu daal di koy jàpp dóor ko damm bëñ bi xuri oom yi toj bopp bi nit ñu def ni naka la ñuy texee yàlla daal di waa ci aaya bi ne ko laysa laka min al amri shay mbir mi du sa mbir li ñuy def yëpp lu mu garaaw garaaw du sa problème de du yow yaa koy régler du yow yaa koy àtte bu yàlla waxee li yonent bi nag kon keneen ah xoola ñi nga xam dañuy toog ba caag nga ñëw rek ngi ne yéen ñëpp dugg ngeen àjjana jazakum la xeran jërëjëf dem leen ah yéen ñëpp dem ngeen aljanna loolu doy na waar de wala yéen ñëpp texe ngeen yéen ñëpp li ngeen doon ut am ngeen ko yéen ñëpp yàlla defar na seen mbir xoola yonent bu wax lii yonent yàlla muhammad moom lañ def lii am lu mu mébét ci xolam ba wax wax ji yàlla ne ko mbir mi du sa mbir am na sax riwaaye yu ne keroog bu mu tiimee Hamza Uhud ñu ngi ko daggate lépp lañ dagg nopp yi bët yi bakkan bi gémmiñ gi tuñ yi sexe bi xar dënn bi génne xol bi yonent bi tiim Hamza mu ne wallahi yéeféer yi bu ma bu ma leen jàppee dinaa ci jël juróom-ñaari ni def leen nii yàlla ne ko laysa laka min al amri shay mbir mi du sa problème mbir mi du sa mbir kon aaya bi loolu moo tax mu wàcc mu ne saxa anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam kaana daa afradan yonent bi woona ay benn benn minal mushrikina ci bokkaalekat yi bil azab yonent bi ne ñii ba ma jàpp leen wa qaala yawma uhud mu wax la loolu bisu uhud ba ñu tojee bopp bi daal di xuri óom yi damm ba ñëm mu ne nit ñu def ni seen yonent naka la ñuy texee fa anzala allahu taala alayhi qawluhu laysa laka min al amri shay yàlla daal di wàcce ci moom mbir mi aaya bi ne ko mbir mi du sa mbir laysa laka min al amri shay'un mbir mi moomoo ci dara mbir mi mooy lan ban mbir la al amru mooy assanu wal muraadu huna tawbatullahi ala alkafirina aw taazibuhum mbir moom xam ngeen lan la mooy seenug tuub yàlla baal leen wala mbugal leen mbir mi nekku ci sa loxo waaw loolu moo tax ñu def attention léeg-léeg nga gis yow tamit ay nit rek yuy caaxaan diine nga di ñii ñëpp safara lañ jëm déet mbir mi du sa mbir de waaw mbir mi du sunu mbir de du ñuy jugé ñun ay wootekat lañ waaye du ñu ay attekat beneen bi mooy ñun ay wootekat lañ mais laaju ñu ñu résultat ah xam nga kuy jàng ci classe ku ne dañ laa laaj résultat ñun nag kenn laaju ñu résultat dañ ñu ne wax leen rek yàllaa yor mbir mi bu ko neexee ki ngay waxal mu jubal ko bu ko neexee mu bàyyi ko mu sànk dugg safara laysa laka min al amri shay mbir mi du sa mbir mbir mi ban mbir la mooy seenu tuub ñi def loolu ba pare tuub xool leen xool leen Wahshi moo rey Hamza xam ngeen Hamza mooy kan kan moo xam Hamza kan moo wax juróomi mbir ci Hamza juróomi mbir ci Hamza Hamza mooy kan ah bàyyi taxu yonent bi alayhi salaatu wasalaam benn ñaar asadullah mooy gaynde yàlla ñett waaw bi omar ñëwee daarul arqam hamza mu ubbi bunt bi ñeent bi ëpp nag solo waxagu leen ko de sayyidu suhada mooy sang ñu ñuy rey ci yoonu yàlla yowmal qiyaamati moo yor seen drapeau xoolal ko ki ko rey ki ko rey ba pare ñëwaat nekk saxaaba te moo ko rey moo tax yonent bi nee na ñaari nit dañuy daje aljanna di xeex ñu ne xeex xolo mu ne waaw nit day tourné mbeddu aljanna rek benn waaye ne la rab poñe yàlla ne waaw yow lu tax nga poñe kii mu ne yàlla kii moo ma rey lu koy dugal aljanna mu ne après dafa tuub rek ñoom ñaar ñu tafante dënn ndeysaan daal di bëggante nga defe ne Hamza bu dajeeg Wahshi Wahshi moo rey Hamza ndax mbir mi ni mu mette woon yonente bi yonente bi bu ne woon tëll dajeeg Wahshi ci Madine ku Wahshi wax dëgg yàlla saxaaba nga de ku baax nga nag bu ma sañoon daal nga dëkk ci ginnaaw Medina lu ma lay gis du bari ndax ma la gisee rek sama xel li dem ci sama papa bi nga rey ñu ko def amul problème parce que yonente bi bëggul gis ci nit lu bon moo tax mu doon wax saxaaba yi ku def lu bon bu ma ko kenn nettali ndax bu ngeen ma ko nettalee sama xel day nekk ci loolu xoolal kooku te terewul mujj nekk saxaaba di ànd ak saxaaba yi fekke jamono yonent di julleek moom ci jàkk ji fekk Abu Bakar fekke Omar xoolal loolu moo tax mbir mi du sunu mbir mbir mi mbiru yàlla la yàlla dana nun nanu woote nanu wax yàlla nag mooy jubal yahdi man yasha moo tax yonent ba mu waxee lu mel nii yàlla ne ko laysa laka min al amri shay'un mbir mi du sa mbir aw yatuuba alayhim bu ko neexee moom yàlla sax mu nangu seen tuub aw shay mu ne nakira wa aslu shay maa yulamu wa yuxbaru bihi baat boobu yàlla wax fi yonent bi ne ko laysa laka min al amri shay shay boobu dara boobu dara mu ne dara ci arab lu nuy xam la ba pare di ko xabaar dara baat boobu loo xam ne dañ koy xam wax ko nit ñi la xabaar leen ko mbirum tuub nag seen tuub ñoom wala seen mbugal yàlla di leen ko def kooku ñaari mbir yooyu tuub nañ yàlla baal leen wala yàlla tuubuñu yàlla mbugal leen kooku ci loxo yàlla la nekk moo tax mu ne aw ya tuuba alayhim aw boobu ci aaya bi li muy tekki fii huna fii bi maana hatta lay tekki ay fasbiru hatta yatuuba alayhim aw yuazibahum aw walla ngeen muñ yéen ya tuubu ba ñu tuub yàlla nangul leen ko aw yuazibuhum wala ngeen muñ ba mbugal yàlla dikk seen kaw ñoom def nañ lu bon li fi nekk lenn la yéen ngeen muñ ba ñu tuub yàlla baal leen wala ngeen muñ ba mbugal yàlla wàcc seen kaw waaye du ngeen fi jël benn décision naan bu ma jàppee kii dinaa ko rey danaa dagg loxoom kee dinaa ko def nii wala nga romb leen nga ni yéen ñii ñëpp safar ñii ñii ñëpp safar lañ jëm ñii ñii bu ñuy dee yàlla di leen làkk ku la ko wax boo waxee loolu ba pare nag suba kenn ci ñoom tuub nag lay wax maa waxoon waxeet bul dugg ci loolu mu ne fa innahum ñoom ñii zaalimuuna way tooñ lañ tooñ nañ yàlla fa innahum zalimun ñoom ay tooñkat lañ képp ko gis nekkoo ci règle yi yàlla tëral jaamuwoo yàlla yow tooñkat nga ki njëkk ki nga tooñ mooy yàlla ñaareel bi mooy koo tooñ sa bopp ñetteel bi mooy tooñ nga jullit yi tooñ nga nit ñi parce que képp koo xam ne dafa nekk ci kaw suuf di mooy yàlla moom moo tax xéewul yàlla yi du wàcc moo tax gis ngeen ku bon bu deewee ku dul jaamu yàlla bu deewee picc yi dañuy sant yàlla ah rab yi ci àll bi dañuy sant yàlla jën yi ci biir géej dañuy sant yàlla ngelaw li day sant yàlla jant bi day sant ñéppay sant yàlla mbi- ñi mbindeefi yàlla yi dañuy sant ci ko bon kooku buñ leen laajee ñu ne gis ngeen kii moom moo taxoon ndox mi wàccul kaw asamaan yàlla moom la mere woon ba téye taw bi bi mu deewee yàlla day dañuy noppalu yàlla léegi dina indi yërmandeem suñu kaw moo tax lu bon baaxul ku bon day yàq environnement jëlal rek lu bon nga koy sotti ci suuf si foofu nga koy sotti après boo fa buggee ji nu muy def ah jëlal pétrole nga sotti ko ci suuf si ba mu tooy xepp bis bu nekk nga koy def ba mu nekk am weer foofu nga doon sotti pétrole bi nga ñëw nga ne da nga fay ji gerte nu muy def nu muy def day yàqu waaye boo fa doon sotti ndox ba mu tooy ba weer bi dee nga ñëw nga ne da nga fay jëmbat gerte nu muy def day nangu parce que lu baax nga fa doon def lu méngoog nature am lu mu bëgg kon nit ki buy jaamu yàlla day defar dëkk bi sunuy mooy yàlla mooy dëkk bi nii lay mel day metti rek jafe gis ngeen ay plan xawma ameen amoon ngeen fi ay plan oméga amoon ngeen fi ay lan plan reva plan plan yooyu yëpp anañu plan bi moo ci mujj bu mujj bi plan bi lan la Sénégal lan émergent émergent fan lay nekk nit ñi bu ñu bonee fan la ñuy amee émergence bu jikko yi yàqoo nit ñi nekk ay kenn xamul démb barki démb laay dégg benn violeur boo xam ne dafa bëggoon nit dafa dafa bëgg ut parti kooku xanaa bu nekkee président ñëpp la ñuy violé te Sénégal ñi fi def lu bon yëpp duñ yàgg kaso te dañ leen di juger ne nangam lañ leen di tëj mais seetlu leen li Luc Nicolaï yàggul kaso tëddul penam ñu génne ko ñu ne ku baax la te trafiquant drogue la wala ñoo ko jugé ñu ne dafa doon jaay drogue ñu ne ñaata lañ koy tëj wala yéen déggu leen woon jugement bi est-ce que tëdd na peine bi góor jigéen beneen bi nag journaliste bi dañ koo génne moom tamit kii doon violé dañ koo génne mu ngi noonu ñoom ñëpp kenn tëddul te am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi fi defuñu ay kudd dong lañ sàcc ak ay paaka ñu ngi ci kaso yi di tëdd fukki at ñii def lu ne weng ñu jugé leen mu leer nañ société bi xam ko ñu génne leen ñu ne non ñii dañoo baax wala yéen nekku leen Sénégal loolu déggu leen ci seen bët wala déggu leen ko ak seen nopp mu ngi noonu léegi nag société boo xamante ne ñooñu ñooy ñu baax ñi fu société boobu jëm buñ fi indiwoon ay robinet or robinet xaalis du dem beneen bi mooy bu nax suñu bopp gis ngeen yokkute du dem indi ay milliards defar tali yokkute du tabax ay étages muy dem du loolu mooy yokku nit nit ñi xam nga lan la ñuy yokk nit affaire yi baax mooy ñu yokk ragal yàlla nit ñi jub walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakaati min asamaai wal ard ay tali yuñ tabax ak ay étage ak ay nangam nangam ay oto yu ligg ak loolu taxul nit ñi dem de Sénégal gi bu même bu nu ñëpp doon liggéey ñu ne jeunes yëpp nañu liggéey bu nu doon liggéey te yaruñu leen ñooñu di liggéey te yaruñu leen xaalis boobu ñuy am fu ñu koy defi tey xam ngeen lan moo tey xam ngeen Sénégal ban ban rang la jëm ci ci jaaykatu yàmbaay Sénégal xam ngeen mooy ban rang ah troisième mais man xam nga lu ma jaaxal yéen du ngeen déglu information mais c'est catastrophe ah yéen ñi ngi mel nekku leen Sénégal lu tax du ngeen déglu information yi Sénégal moo jël troisième puissance mondiale ci trafiquant yàmba bay yàmba ni Afrique Nigéria mooy pays Ghana mooy deuxième Sénégal mooy troisième dugg leen loolu tey rajo bi ah kan fi moo ko dégg allahu akbar gars yi nee nañ ay islamiste lañ waaye yéen yéen bu leen information yi rawee ana kan fu ngeen di jël fu lu ngeen di demee lu ngeen di rëcc kon yéen lu ngeen di déglu làmb rek moom doon waxuma paa bi yéen jeunes yi laa wax ah déglu nga tuuti tuuti mais yéen bu leen information àddina bi rawee fu ngeen jëm jullit day xam lu xew jullit day xam li xew ci àddina bi xam li xew ci réewam loolu mooy tax nga mën a taxaw di mais bu ngeen dul xam mbir yi fu ngeen jëm dee leen ko déglu nag di segg di ngeen di déglu di segg parce que nit day xam li jub ak li jaadu boo déggee mais xam nga li àdduna bi wax ñun loolu waxuñu ne ko suñu bopp ñi doon def ñi doon def bilan bi ñoo ko wax ñu ne Afrique Nigéria mooy pays bay yàmba Ghana mooy deux Sénégal mooy troisième loolu sax ni la koy woon mooy bis bu nekk ñu jàpp fi nangam tey am na benn jigéen bu ñu jàpp Casamance benn réseau bu ñu jàpp ay trafiquant yàmba waaw ñi ñu jàpp. ah 300 et quelques kilos yàmba. mu mu nga léegi kay kon ñooñu wax nañ dëgg léegi nag réew mu mel noonu ñu ne réew moom day yokk lu ñuy yokk xanaa bay yàmba lu ndax suñu bopp. gis ngeen réew xam nga lu koy yokk mooy ñu defar nit ñi waxoon naa leen fi tafsir yi la passé benn waay dañ ko ne benn waay dañu ay benn waay dañu tiituru ñaari taalibe dañ doon tiituru benn taalibe bi di tiituru ci beneen dam beneen taalibe bi naan ko gis nga ñun suñu jumaa ji moo dàq ci jumaa yi ci Sénégal kooku ne ko ñun defaruñu ay jumaa nit la ñuy defar ñun defaruñu ay jumaa ay nit la ñuy defar ñun waaw ñun tamit xam nga lu nu war defar nit ñi suñ bëggee Sénégal Sénégal baax nit ñi la ñuy defar waaye bu ñu tabaxee tabax tali yi defar dëkk bi ba mu rafet fekk defaruñu nit ñi après du ngeen gis yenn saa yi ñu defar ay feu rouge ah defar ay lampe defar ay verre ay télésan après bu gaa yi meree kon kay ba yàq mu axul ah loolu ñu defar léegi fi mu nekk ni gis ngeen stade bi ñu ngi koy defar bàyyi leen ba gaa yi mer gazon bi la ñuy taal oui daxuma leen gazon bi la ñuy rajaxe toj verre yi dammate buntu yi damm baar yi voilà loolu nag amul amul sens xam nga lan mooy lan mooy njëriñ mooy ñu defar nit ñi ba kenn du yàq nit ñi dañuy xam ne lii ñoom ñoo ko moom te nit ñi bu ñu leen defarul ba nu ragal yàlla lu ñu leen indil ñu yàq ko parce que jikko golo la ni yor jikko bàyyi ma la ni yor bàyyi ma yàq rek xaj ngay lalal fii ba mu rafet mu jóg léegi dem fi àll ba wala mu saw ci wala ginaar parce que moom bàyyi ma la yoonam nekk ci loolu nit ñi nag bu ñu leen defarul noonu la ñuy mel gis ngeen université da ngay gis xale bu góor bu dugg ci duus wala mu dem ba ci kii ba mu daal di koy def ci karo yi pare ubbi robinet bi nga wax mu ne alalu gouvernement bi la suñu yoon nekk ci la ñuy yàq fii la ñuy jàpp ay kaar di ko lakk te foofu la ñuy defaree intellectuel yi ay kaar Dakar dem dikk ñaata yoon ngeen dégg fi ñu jàpp ko di ko yàq ñaata yoon ngeen dégg fi ay tata yu ñu toj ay oto jàmbur yu ñu lakk te loolu ñi ko war a defar mooy nit ñi wala amoon na temps benn mbooloo bu génn fii rek dugg Dakar di toj oto jàmbur yi te kenn waxu leen dara def nit ñi defu leen dara ñu dugg di toj wala gisu leen woon loolu yéen fekku leen fi voilà xam nga lu tax ñooñu defaruñ leen su leen defaroon duñ yàq alalu jàmbur yi defaruñ leen ku ñu defar doo tooñ doo ragal nit ñi mais borom nit ñi ngay ragal parce que xam nga ne lii ngay yàq ëllëg yowmal xiyaam yàlla da lay laaj parce que àqu jàmbur la te doo dem yowmal xiyaam du yóbbu àqu nit du état yàlla la yonent bi nee na bu ma dajeeg yéen kenn ci yéen yowmal qiyaam muy tooñ zamim kan mooy zamim mooy kudul jullit sax amoo droit tooñ ko waxuma la ak jullit boo dëkkal amoo droit tooñ kudul jullit waxuma la ak nag ngay tooñ jullit sa morom dajale ba am as otoom su ndaw liggéey gaare ko nga ñëw rajaxe ko loolu ban diine la parce que defaruñu nit ñi kon nan sonn pour defar doomu aadama yi suñ leen defaree ci la sunu àdduna di jag alal buñ ñu indil ñu garde ko fun nu teg ñu sàmm ko lun nu liggéey loon nu baaxal ko suñ ko deful tooñ rek la ñuy nekk fa innahum zalimun dañuy nekk ay tooñkat borom bi nee na walillaahi ñeel na yàlla maa lépp loo xam ne fi samawaati mi ngi ci asamaan wa ma fil ard ak li ci suuf kon lan la yàlla moomu ku yàlla moomu milkan wa xalqan wa abidan yatasarrafu kayfa yasha wa yaxkumu ma yurid borom bi tabaraka wa taala moo gouverner lépp moo moom lépp milkan lépp maa moom maa moom maa moom yëpp guddal fan rek léegi ñu xam ne moo moom maa moom maa moom guddal fan léegi nga ba ko fi wala mu bala fi kon moo moom loo moom yàlla moom moom jaam ñi moom moom mbindee fii ñépp ay jaamam lañ moo ci soppi nu ko neex moo ci àtte lu ko neex ci ban waxtu lañ nekk guddi nañu ne bëgguñu guddi nañu neex ñu indi bëccëg acca nañ jóg taxaw jóg leen luñ ci mën mën nañ ko mën na ko yàlla moo ko moom lu ko neex la ciy def yatasarraf lu ko neex mu soppeeku ci jaam ñi yaa ngi toog léegi léegi nii wér këng bu ko neexee fi nga toog mu faat la kenn muñu dara yenn saa nga dégg ñu ne diw dee na ñu téléphoné sëriñam mu ne xaar leen mu ñëw bu ko kenn suulte ñëw ma mu ñëw ñu ne ko mu ngi nii lu mu ci mun ah day ñëw ne ko jógal ñu ñibbi kër ga jógal kii sama taalibe la lu dee jógal jógal jógal jógal ndeysaan bu ñu ko téléphoné daal dinaan kañ la ay waaye loolu kañ la kañ la ñu ne ko biig mu ne indi leen ma ko yaay daal di yenu yóbbu après après bu ñu ko yóbbee amul fu mu mujj rek loolu ni ñu ko waroon def fii rek loolu la koy def foofu kon kay suul leen rek waaye xaar leen moom ma ñëw ñu jagar jagar yi dugg ci kaat kaat yi ñëw grand mbubb yu ngand kaala yu rëy kurus yu rëy daal yu ngand ñëw après après ñëw nga léegi ñëw nga waaw bismillah mi ngi nii tëdd aja aja mënuñ ci dara kon yàlla la yàlla lu mu def kenn mënu ko dindi lu mu dindi kenn mënu koo def loolu bu leeree ci ñun rek sunu pas-pas day dëgër walillahi ñeel na yàlla moom dong moo moom maa fi samawaati li ci asamaan yi milkan wa xalqan wa abid mbindeef yeeg jaam yeeg lépp lu fa nekk yàlla moo ko moom di nga dégg fii ku ne maa moom dara kër gi sama kër la waaw baax na guddal fan léegi mu dee ñu jaay pàkk bi keneen mu ñëw indi bulldozer ñu toj ko def xeer yi ci oto jaayi xeer yi sànni ji ko ca mbalit waa ji ñëw dóor benn immeuble su waa ji dekki woon ñëw day romb foofu danaan dëkkuma fii de fii di sama koñ bii dëkkuma fi moom du xàmme këram day ñëw ne waaw yow fii moom fii kañ la mel nii suñ ko ne waa ana kër gi nga dëkkoon mu ne ah est-ce que du koñ bële te këram a ngi nii mu taxaw moomu fi moomul dara am na sunu papa yoo xam ne tey ku leen indi waatoon ci biir dëkk bi jaarale leen ci autour péage bi yóbbu leen ba Malick si tournée dem ba jam ñaajo ñëwaat ñu ne ko ban dëkk nga nekk danaan yi New York fii New York la gars yi dañuy tooñ ñoo ñuy dugal ci gaal yi ñuy tukki léegi am na benn waaye bu ci jël ay nit dugal leen ci benn gaal yóbbu leen ci lëndëm gi mu bàyyi ba fajar mu indi leen tefesu port ñuy seen làmp yi mu ne leen Espagne ngi ne leen kii capitale bi nu mu tudd Madrid Madrid a ngi ne leen bu làmp yi tàkk bu fajaree rek ngeen daw fajar gaa yi daw rek ndeke ñii mool huit lañ nekk ñi nekk mool deux ñi nekk Sandaga ñu gis marché ambulant yi di lal ñu ne woy ñu koy dëkk ba la ndeysaan gis ngeen du benn allahu akbar suñu boroom yàlla moom de buñ ko jaxase buñ ko jaawale maa fi samawaati wa maa fi ard ak suuf si de moom tamit milkan wa xalqan wa abidan waaw jaam ñeeg li fi nekk ak tout yàllaa ko moom nu ko neex mu def nu ko neex kenn mënu ci dërëm mu neexee mu sedd bu ko neexee mu tàng bu ko neexee mu neex bu ko neexee mu naqari bu ko neexee mu nawet bu ko neexee mu téye ndox mi waaw yàlla moo ko moom subhanahu wa taala yatasarraf kayfa yasa day ciy soppeeku nu mu ko neexee mu ne yaxfiru moom yàlla mooy jéggal liman yashaau ku ko neex waaw wa yuazibu mooy mbugal man yashaau ku ko neex lu ci mën yàlla mooy yërëm ku ko neex moo koy jéggal waaw waaw wa yaxkumu maa yurid mooy àtte lu ko neex fa in azaba fa bi adlihi fa in rahima fa bi fadlihi bu mbugalee ci maandu teem la su yërëmee ci yërmandem la mu ngi mel ne ginaar rek bu benn waaye ne waaw yàlla mu ne maay mbugal ku ma neex maay yërëm ku ma neex loolu est-ce que nu mun nekke da nga am ginaar kan moo fi am ginaar këram am ngeen ginaar yaru leen ginaar du ginaar yi bu la neexee nga baxal nen bi bu la neexee nga rey doomi lekk bu la neexee moom ginaar gi nga rey ko ndax da ngay am bakkaar lu tax est-ce que da ngay rey da ngay baxal ginaar gi nen gi ñëw nen bi naan la xam nga li nga def waroo ko def nen yi sama nen la waroo ko baxal nga jàpp benn ci doom yi benn daal di jël reere nga ñëwaat ginaar gi ne la xam nga sama doom ji nga rey nga baalu ma la ko du yow yaa ko moom lu la neex nga def lu la neexee nga ni tey nañu nañu nañu reere ñetti ginaar ci ginaar yi bu la neexee suba nga ni noonu tey nañu omelette ginaar suba nga ni nañu baxal wala waaw loolu nga def du dalaa neex yàlla moom moom jaam yi lu ko neex mu def ñii da leen a gis ñuy góorgóorlu mu jubal leen ñi mu gis leen ñu jaay ay caay-caay di woyofali tubéy ki di bënni nopp ak di baram bopp ak di dof dof lu di bëgg a nekk ay dof mu def leen ay dof waaw jeex na ñii dañoo bëgg a baax mu yombalal leen yoon wi lool mu yomb mu yërëm leen waaw ñii de samay jaam lañ ñu ngi góorgóorlu ñu ngi góorgóorlu bëgg a baax ñu ngi jàng ñu ngi julli ñu ngi jàpp ñu ngi ñii nag ay disco lañu bëgg nekk ak ay càkkaaba mu bàyyi leen ñu alku jeex na moo tax suñu borom mu ne yuazib yàlla mooy bugal yaxfiru mooy jéggal liman yasha ku ko neex ci maandu teem wa yaxfir loolu la de yaxfiru mooy jéggal li man yashaau ko neex wa yuadib mooy mbugal man yashaau ko neex wallahu moom yàlla xafurun kuy jéggale la waaye rahimun kuy yërëme la allahu akbar yàlla day jéggale yàlla di yërëme sunu borom subhanahu wa taala bëggul mbugal nit de waaye nit moo dëgër bopp nit moo dëgër bopp nit moo wowle nit moo bëggut a baax nit moo bëggul jaar ci yoonu njëggal ak yoonu yërmande moo tax yàlla foog mu mbugal ko waaye nit su meloon ni ko yàlla sant kon du am mbugal kenn du ko mbugal yàlla bu ne damay jéggale bu ne damay yërëme dafa bëgg am lu mu nga jàng ci loolu yàlla waxul aaya yi noonu rek wallahu gafuru rahim yàlla day jéggale day yërëme rek comme ni ko waa Sénégal di defee yàlla day jéggale day yërëme rek nga gis waa ji daal dem non gars yi ñoo soxor yàlla nee na man damay jéggale damay yërëme rek waa ji tëdd jaaxaan du def dara wala mu dem di nekk ci fo xoolal loolu ngay dégg fii Sénégal yàlla du lakk kenn ñenn ñi sax dañ naan doomu aadama sirru muhammad la miim aadam dellu miim daal suñ ko suulee ci bàmmeel sax nga gis ñu bind ci loolu muhammad ñu ne yàlla du ko lakk waaw yaa gaa yi dañuy wax teguñu ko fenn yàlla dina bind nit di ko lakk waaw loolu fuñ ko teg doomu aadama leeru yonant bi la yàlla bind muhammad ci biir muhammad mu dindi ci leer bind ci nit ñi kon yàlla bu lakkee nit muhammad la lakk nga gis gars yi est-ce que di di di fetrasu caaxaan yooyu yooyu ay caaxaan la de du du théorie bu normalul de du wérul yàlla dindiwul ci leeram bindu muhammad mukk ci àdduna loolu wérul da ngay dégg ñu koy naan muhammad mooy sirrul wujud mooy secret existence mbind bi ndax lépp yàlla nga ko génne ci muhammad loolu amul loolu amul de loolu ban aaya la ban dalil la fan la ko yàlla yàlla wax fan la yàlla wax ne yéen ñëpp ci muhammad laa leen génne ñun dalil rek lañ bëgg a dalil aayab alxuraan rek ñu xam ne dëgg la wala xadiis yonent bi loolu wirul wirul yàlla wax na lu leer ne nit ñi ci aadama lan bàyyee ko yonent bi nee na kullukum min aadama wa aadama min turab yéen ñëpp ci aadama ngeen bàyyee ko aadama fan la bàyyee ko ci suuf yàlla wax na ci qur'an ne يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء دلول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم أو yéen ñëpp ci benn nit laa leen génne muy aadama benn nit boobu ma génne ci moom jabaram yéen ñëpp ma génne leen ci ñaar ñooñu inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum suuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum loolu ay aaya la yu leer ba pare ñu bëgg fee wax doomu aadama Muhammad mooy sirul wujud lépp ci moom la génnee kon doomu aadama ci Muhammad la génnee Muhammad ci yàlla la génnee kon yàlla bu lakkee nit Muhammad la lakk ak boppam loolu wérul de ku dugg ci musiba yooyu ba ba nga toog bañ a jaamu yàlla yaayala yàlla aaya yi mu wax ci alquran damay lakk nit ëllëg kenn xamul nu mu toll donc aaya yooyu fu ñu koy dugal yàlla sax day dugal safara di ko remplir remplir remplir ba safara na ñett yàlla dëgg ci tànkam safara naan xottun xottun xott doy na doy na doy na yàlla ne ko ndax fees nga mu ne hal min mazid yawma naqulu li jahannama hal imtalaat wa taqulu hal min mazid safara ndax fees nga mu ne yàlla dolli ma rek ma lakk dolli ma ma lakk hal min mazid nit ñi bu ñu duggee safara dañuy woo Malik naan Malik yaa Malik ud'u lana rabbak li yuxaffifa anna yawman min al azab ay Malik wol ñu sa borom mu baal ñu rek benn fan ñu noppalu benn fan benn fan waxuñu sax mu baal ñu de benn fan rek na oyofal mbir mi na wàññi degré bi ndax ñu mën a féex waaw aaya yi fu ñu koy dugal wa man yaasi llaha wa rasulahu fa inna lahu naara jahannam ku mooy yàlla ak yonente bi safara jahannama nga jëm aaya yi fu ñu leen di dugal wala loolu du waxu yàlla kon nañ leen góorgóorlu bu nax suñu bopp borom bi nee na yaa ayuha alladina amanu ee yéen ñi gëm ndeysaan beneen kàddoo ngoog bu yàlla di woote aka neexoon ñi muy woonu dégg ko yaa ayuha alladina amanu ee yéen ñi gëm ne yàlla mooy seen boroom islaam mooy seen diine muhammad mooy seen yonent ngalawaay laa taakulu bu leen lekk arriba ndollent adaafan mudaafa double ci kaw double bu leen ko def laa taakulu riba bu leen lekk riba bu leen jëflante riba sawaun kaana aklan aw sharaban aw libaasan moo xam yére la moo xam naan la moo xam col la bu leen ko def bu leen ko utiliser mukk benn yoon bu leen lekk riba bàyyi leen riba riba mooy ndollent gis ngeen bi yàlla ne ñi ñiy lekk riba don avancé mukk saa ñu bëgg a jóg daan yonent bi alayhi salaatu wasalaam dem na laylatul isra wal mi'raj mu gis ay nit yoo xam ne seen biir yaa ngi rëy ba toll ni néeg kullama araadu an yaqumu saqatu saa yu ñu bëggee jóg daanu ndax biir yi nu ñu réye yonente bi nee na ma ni jibril man haulaai ya jibril mu ne haulaai alladina yaakuluuna riba min ummatik ñu yonoon lekk katu riba yi ci sa xeet alquran wax na ne ñiy lekk riba la yaqumuuna illa kama yataxabatuhu sheytaan min almas sa ñi lekk riba yow man xiyaam bu nu bëggee jóg dañuy mel ne ku jinne jàpp dañuy jóg di daanu di crise wala état yi lekk riba taaye lan moo daane loon Europe ak Amérique banque yi lu ko daane la ñoom ñoo ko wax ñu ne riba moo nu daaneel riba ñoom seen bopp du ñu ay julit ñu ne riba baaxul ndeke ñoom ñëpp ñu daw dem Indonésie di jànk banque islamique wala kon kay yàlla moo wax dëgg riba baaxul te nag néew na tey ñu nekkul riba de Senelec dañuy lekk riba SDE dañuy lekk riba Sonatel dañuy lekk riba ah ak sociétés yu mag yi fii dañuy lekk riba fu jëm ñëpp ay lekkat riba lan lekk yi fi jàmbur yi lekk alalu jàmbur xoolal alkaati yi ci tali bi xoolal gendarme xoolal douane ndeysaan sànq damay liir ba ci yàgg benn waay gaare otoom fenn fu daal di wàcc quoi dem doxi soxla nga lu mu defi rek bàyyi doom ji ci oto bi policier bi ñëw yërndu gis xale bi ci biir oto bi mu ne ko ana sa papa mu ne ko dafa génn mu ne ko sa papa dama koy jàpp parce que dafa jalgati loi bi xale bi na ko sama papa du jalgati loi de yow mi yow yaa jalgati loi bi mu ne ko man ban loi laa jalgati mu ne ko est-ce que julli ji nga suba fajar jàkka police bi ne ko déedéet mu ne ko yow yaa jalgati loi bi yow mii lañ war a jàpp police bi taxaw ba paa bi ñëw daal di koy jéggalu daal di tuub allahu akbar gis nga ñooñu nu ñu leen yare woon ndeysaan keneen ki dafa nekk ci classe bi di jàng professeur bi wane ginnaaw rek am benn booy bu ko laasa dagitu kere daal di ko koy xaañ xam nga am na élèves yoo xam dañoo say say professeur bi gestu ne ku ma xaañ classe bi na teg noonu la ñuy def élèves yi ñu ngi toog ñu ngi may dégg xam na li ñuy def ne ku ma xaañ classe bi na teg kan moom sànni kere bi classe bi na teg professeur bi wax lu ne classe bi na teg am na lu mu doon def rek ci sànni kere ki doon wax ak benn ku mu dendal rek professeur bi gestu rek gis kooku di ni nii rek mu ne ko yow la rek daal di koy jël yóbbu ko direction kooku ne ko du man mu ne ko yow la mu ne ko du man mu ne ko yow la rek mu yóbbu ko ci directeur bi principal bi principal bi mooy xale bi yow la xale bi ne du man mu ne ko yow la yow foog ñu mbugal la yow tey rek xale bi ne man gëm naa ne man mbugalu yàlla du dal sama du gal du dal sama kaw tey parce que man yonent bi nee na ku xëy suba julli ji yaa ngi ci sécurité ba jant bi soo kon man damay nekk ci sécurité yàlla parce que julli ji naa fajar jàkk du man rek directeur bi commencé jooy presse maître bi commencé jooy ñu daal di koy jéggalu mu daal dellu classe toog mu ne man gëm naa waxu yonent bi du man gis nga ñooñu noonu lañ gëmee yàlla xoolal gis nga société boobu nu muy baaxee parce que nit ñi dañ leen defar suñ leen defaree rek dañuy defaraat waaye fii bu doon fii la nga naan ay julli ji naa suba dañ naan waaye demal màkka nga naan julli naa suba parce que ñi kii bi moo dee fitra bi fii fitra yi ñoo dee fitra yi nit ñi amuñu fitra amuñu fitra ndeysaan amuñu fitra nit ñi fii seen fitra yi ñoo dee allahu akbar borom bi nee na yaa ayuha alladina amanu waay waay yéen ñi gëm ngalla waay laa taakulu bu leen lekk arriba ndollent arriba luxatan aziyaada mooy lu ñu yokk wa fi shari nawaani bu fekkee ci shari lislaam ñaari xaaj la ban ak ban la riba alfadl wa riba nasiya mooy riba boo xam ne dafa nekk ci or ak xaalis ak dugub mbaa blé mbaa tàndarma mbaa mboq mbaa mbaa mbaa moom mooy benn riba bi beneen riba bi mooy dañ laa lebal ñu ne la weer dee nga fay weer dee amoo loo fay nga ñëw ne téeméer laa waroon fay léegi comme awma lu ma fay yokkal ma ko mu nekk ñaar téeméer ñaari riba yëpp benn baaxu ci boo ci baawel boo dee da ngay lakk bàyyi leen riba wattaqullaha ragal leen yàlla gis ngeen bàyyi leen riba ragal leen yàlla laallakum tuflihuna ndax ngeen texe allahu akbar kon ku bëgg texe nooy def wattaqullah laallakum tuflihun ngal la bàyyi leen riba ngeen ragal yàlla ndax ngeen texe allahu akbar laallakum tuflihun su ngeen bàyyee riba rek texe waaye bu ngeen lekkee riba fettiirlu lu ngeen ciy jële mooy daanu rek xool leen lekkatu riba yi gis nga société boo gis ñuy lekk riba wala kilifa boo gis muy lekk riba seetaan ko bala muy dee alalam yépp mu fajoo ko alalam yépp dina ko jaay dina jaay oto yi jaay kër yi bien yépp danañ ko jaay mu fajoo ko ba mu jeex takk mu doog a dee riba baaxul dund ngeen fii ci Sénégal ay nit ñoo xamante ne xamoon ngeen leen ci alal ay lekkat riba lañ woon waaye fu ñu mujjee baaxul riba ci àdduna nga koy gis balaa ngay dem àllaaxira waaw ak nu mu mun a demee nag bu fekkee sax yéeféer yi ñoo ci am problème masama ak ñun jullit yi borom bi ne wattaqullaha ragal leen yàlla mooy ragal yàlla mooy lan mooy def leen ay santaaneem bàyyi leen ay tereem mooy tundiku leen ko laallakum ndax yéen tuflihuna ngeen texe ngalla waaye wattaqu naar moytu leen safara allahu akbar waay waay moytu leen safara allati safara bi nga xam ne uiddat préparel nañ ko waajal nañ ko lil kaafirina ñeel yéeféer yi ku weddi yàlla rek safara lañ lay préparel gis nga li ñu doon wax sànq aaya bi fu ñu koy dugal yàlla nee na safara dama ko préparé pour yéeféer yi yéeféer mooy ku bañ a topp yàlla wattaqu naar moytu leen safara sànq li yonte bi ne wattaqu naar walaw bi siqi tamra moytu leen safara donte ne tàndarma ngeen dagg ci digg bi joxe ko Malik ibnu Dinaar nee na bu ma amoon ay nit yu may dimbali dinaa leen tas ci adduna bi bu nit ñi nelawee ñu ñëw ci fenêtre nit ñi di fëgg fenêtre yi naan ittaqu naar moytu leen safara waawoon ay nit yu ma dimbali dinaa leen tasaare ci kaw suuf fenêtre bu nekk guddi su borom nelawee ba 3 heures du matin ñu fëgg fenêtre bi ba nga ne kokkan la ñu ne la moytul safara de taqu naar moytu leen safara mbokk yi safara jar naa moytu ñun ñëpp nañu imaginer fi nu toog ku nekk imaginer safara ku nekk fi nga toog imaginer safara buñ la jëloon fii nga toog ne ñu dañ la ciy dugal la ilaha illallah bu nu taaloon beneen almel ñu ne dañuy lakk sa nopp wala dañuy lakk sa benn baaraam wala sa benn tànk imaginer ñu ne dañ la ciy dugal dañ leen moytu safara fattaqu nnaar fattaqu nnaar allati uiddat lil kafirin moytu leen safara bi nga xam ne yéeféer a tax yàlla préparé ko yàlla préparé na ko yéeféer yi nan lañ koy moytoo mooy wa atiu llaha wa rasul ngeen topp yàlla ak yonent sànq fee lan la waxoon laallakum fii mu ne laallakum turhamun ndax yàlla yërëm leen kon sunu banee dugg safara lan moo la ñuy la ñuy moytandikoo mooy nu topp yàlla ak yonent yàlla yërëm ñu ci topp bi ñu topp yàlla ak yonent mu dugal ñu aljanna mu yërëm nu fee laallakum tuflihun fii laallakum turhamun ku bëgg a bokk ci ñi yàlla yërëm jumtukaay bàngoog mooy lan atiu llaha wa atiu rasul bu ngeen toppee yàlla topp yonent yàlla yërëm leen ay yarhamukum fa yatubu alaykum wa yaghfiru lakum wa yudxilukum daara salaami wa naimi almuqim su ngeen toppee yàlla topp yonent yàlla yërëm leen nangu seen tuub jéggal leen dugal leen kër googu tudd këru jàmm kër googu nga xam ne mooy këru xéewal yal leen yàlla boole ci yi mu yërëm loolu moo doon darsu tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu